sab sang yow ko muñ saa muñ na sax muñ muñ lu sab sanga bon sas ndoole koo xam ne am na la nawle boo ko muñee raawa mawlidawul muxtaara yàllaw xibooli mati rasuulillaahi wastamioo wansitoo yaa mala li naqi yàllaw jóg leen taxaw déglu lii ma yog muhammadana min mawlidil harabil mansoor yalaw mawlida daaya wetar laay way pii wolofal ndax yenn jaayil ya ngam mën naa yalaw damay xamal gaa yi daa mawli lu doon sawar ndax yàlla fuñ toll naa yalaw yalaw mënoon na maa way yaaram waaye kon bu xamul xam ci lu tax tagg yonem war mu yalaw xam yàlla xam fa mu teg yonent ba war ku ne ku leen xamul yàlla bun xam kooka law danaa fooy turi maamam ma xawaariqiin ak mu gisaat yu mu daa def booba law min fay di bahril manaawi yaa mu diimu lana xaratu saa nasma fil man shoore law wal mawdul durri wal bari laa jëkk a way booleeg manaawiyu wal bar san ji yàllaaw niral naay xise ñëw fii te du fa ñëw moo tax ma boolaate seen mawlid ya yàllaaw muhammadun xayru xalxilaayi fii abadin yàllaaw salli xale yi dahra yàllaaw muhammadun xayru xalxilaayi fii abadin salli xale yi lawlaaw maa kaana mulku laahi muntasiman duniyaan wa uxuran min al asmaani yàllaw xad kaana nuuran wala lawhun wala qalamun wala samaa'un ma al amlaaki yàllaw wala jinaanun wala naaru jayni wala arshun wa furshun ma al anhaari yàllaw wala nujuumun wala samsun wala xamarun ولا زاب مع الأمتار يا الله ولا جبال ولا بر ولا شجر ولا رياء جرت في ذلي يا الله ولا دواب ولا إنس ولا ملك والجن والأنس والأشجار يا الله فالكل من نوره رحمن أوجده لولاه ما كانت الأفاق يا الله مشجان المصطفى بان أمان لنا والكائنات من الأنوار يلو يا مولد المصطفى هيا تنيجتنا أسقيتنا من هيون منك يلو يا مولد المصطفى شربت مسمعنا بسجر غير البراء يا دهلا يا مولد المصطفى فرجت قربتنا كسوت عاقدة الأنهار يا الله يا مولد المصطفى فرجت كربتنا كسوت عاقدة الأنوار يا الله يا رب أفضل بجاه المصطفى كرما واستر عيوبي في داري يا الله واكرم نظر يا المصطفى كرما دهرا دار في سجين منك يا الله وسلم بتسليم عليه وروي روحي رياني الله لما أراد إلهنا سمالكنا تكين نور رسول الله الله خلق دوان فسماها بقدرته زجرة الخلد واليقين الله كرب يالله حمل لير محمد ما لبن نجام قوي سبال الله ñenanti wa nga aslam bindam ba moo yaa tiiméeri hadina cay seddam gayalaw mu bind leer ci kiiraayal wus la ko def nelaw njanaaw la misaaloo foofa yalaw sabaal na foofee juróom-ñaar fukki junni bi at ca kaw garab ga bi isnillaahi yalaw bur yàlla jox ko fa mir hayaa imu yor ba leer ga seetoo ba gis boppam fa yalaw baatin ba daldi sujjóot ngir cal sa dellu taxaw juróomu yoon ñu dugal fa julli yàllaaw juróomi julli moo tax deesu leen mën a bas ngir moom la jëkka lëggee looru ga yàllaaw min nuuri rabbil waraa anwaaroo kulli xat xablal xalaa'iqi fil marwi yàllaaw anwaaru asaabihi mi nuuri xuliqat wal anbiyaa wa jamii rusuli yàllaw leeram nga jaamu na leerug lu mat bi leeram nga jaamu na leerug rabbu wuudi ko wër lu bi xamsiini alfin haami yàllaw bur yàlla daal di digal leer yooyu yëpp ñu wër ngir jaamu leer rek rasuulullaahi yàllaw taafa wa taafoo bismillaahi ñëpp a nga naa subaana xaaliqu haza nuuri yàllaaw ñii wër di wër argu argulhaami mbaalu ko ful bilamdi wa shukri wa tasbiihi yàllaaw bu yàlla xool leer ga muy lox far ba ñaq ba sab di toq toqi hayaan minu yàllaaw ñenantu toqi ne jiigooy Baabakar Omar Usmaan summa Aliyun wóor na yàllaaw bur dellu bindaat ca toqin yooye wan ca la sal malaaka yaag xarasa kursi yi yàllaw waalan biyaa wa jamir si wal kurama wala wi wal xalamil ma foosi yàllaw bur yàlla naa xalimam googee bindal ma jikun maa kaanu aw sayako lu dara yàllaw mu naa ko man ana lan laay jëkke bind bu wir yaa rabbi yaa xaaliqal asyaai yàllaw mu naa ko an laa ilaha laa sharika lahu ilal ilahu wahidan doy na yàllaw muhammadun xayru xalqi laahi fi abadin saali ilahu xalqi yàllaw ba yàlla tuddee rasulu daay ahmadana mu ci baxar daldi sujjoot foofa yàllaw sujjoot na tiimiiraat foofee yi ma tëgg a jóg màggal muhammadu ak xeetam wi yàllaaw mu bind hajjana ak xéewal yu rëy ya mu yor wal hóoru wa dóoru wal wildaanu yàllaaw te bind jaanama ak tàngoor wu rëy wa mu yor ak ci saajiid ya ak jaanam ya yàllaaw yàllaa nga naa xalimam googee bindal duma far marceel mu ummatu ulul hasmi yàllaaw neenu maakul mustafa ñoo xeeku mos ni batul yàllaa di la bul xaboo runu wóor na yàlla woo neenu maakul mustafa ñoo خبر ونا يا الله يا أمة المصطفى أتم بي شرفا ولم ياسك لا إنس ولا جان فأنتم خير قوم الأنبياء وجاه مبشرا من كلام من آي غرام وآتر النبي المصطفى كرما دهرا بارك ششير من جيلو وسلي النبي تسليم حميدي ولويرو بريعاني يلاو دبل المغلب اللي مصطفى دخدو caawal ak soog a ñëw fii kaw ni la fa leer ak Moustapha dox a dox a ñëw fii kaw ni yàllaaw bur yàlla bind na leer ak Moustapha te bindul fii mulki wal malako ti dara yàllaaw leeram nga jiitoon na leen téeméeri junni ba muy téeméeri junni ba muy ay junni yàllaaw leeram nga jaabu na leer yàllaay miliyon ñu xel dajul nopp déggul foofa yàllaaw buur yàlla leer yu ko yu mar fukk ak yaar yu taliñ jéele yàllaaw kiiraay lu mu sax jaamu ay yet yet kiiraay lu ñu gën a tal la weesu yàllaaw mawlid ba lim lim cay kiraay danaa la ko wax ak ture yónneen ba jaamoo foofa law hijaabu xudrati rabbina si maalikina moo ba sax fa cay wër fukki junni bi at ak junni bi at tey tudd yàllaw mawlid ba ne lam fa daa jaamoo ci lamiñu kun zuraana rabbil hani sehni yàllaw bam jeexalee loole kiiraay fii ca buntu ba yoon hijaabu asmati fi noori yàllaaw yonneen ba tax na fa tey dox fukki junni bi at ak junni bi at ngir jaamu yàllaaw mawlid ba ne la fa daa jaamu ci lamiñukum subaana li sirril kulli yàllaaw ñetteeli kiiraaya soo dëggoo maax ko nga xam حجاب منتي في نوري الله foofee la jaamoo boroomam fukki junni daat yeesu léppul lii la mawlit ba fayalaw mawlit ba nee lam fa daa jaamoo ci la kun subhaana raafihuna yalaw yalaw déglul ñeneen ceedi kiiraayam ci riir yaaras ak kursi yoob malakoo tilaayi yalaw hijaabu rahmati moo yërmandeem jamu yor sam nal fati satu alaasin fa yàllaw mawri banee lam fa daa jaamoo ki la subhaana rabbim rookin raayimin law ci leer ijaabu sahaadatin asal la jadeg moo yor taxe teefi yonen leer ak ijaabu saadaati nasal la ca teg moo ya tere xeeti yoon foofa yàllaw lu mat juróom ñetti junni hat yu mat la fa am di jaamu rabbul wala min haale yàllaw mawlid ba ne lam fa daa jaamoo ci zubaana man laa yasa lu dëhra yàllaw déglu li jaabu karaamaatin ma wax ko nga xam moo yor karaamay rasulullahi yonen ba sabatu yu ma lafaam ci yaddi jaamu boromam wóor na yàllaaw mawlid ba neelam fa daa jaamoo ci lamiñukum subhaana rabbin hakimin sama yàllaaw hijaabu man silatin mooy sax yonen ba fa kem lu mat juróom benn junni ak fa yàllaaw xijaabu man si la jël yoneen ba sax na fa kenn lu mat juróom benn junni ak fayalaw mawlid ba ne lam fa daa jaamoo ci la minu gun subhaana zil mulki wal amlaaki yalaw xijaabu yoneen xijaabu idaayatin asal la ca teg moo yor jubal xeetu yoneen foo fayalaw yoneen xijaabu idaayatin asal la ca teg moo yor ju ba xeeti yonen foofa yàllaw juróomu junni laa foogee caat yu ma xam di yaamu xaaliku noorin har si yàllaw mawlid ba ne lam fa daa jaamoo ci lamiñu gun subaana si la siwal kursi yàllaw yonen yi jaamu nu boobatin la tabbi këram mooy pey ba yor booti ñenantu junni laaw foofeeg ceet yu ma xam di jaamu buur yàlla leer yay jolli yàllaw mawlid ba ne lam fa daa jaamoo ci lamiñukum subhaana wa bihamdillahi yàllaw hijaabu rafati huryaa danaa la ko njool ma ko xuus na ko jël xar baax ya yàllaw yoon nan ba sax na fa tey yoon nan ba sax na fa ci yet ñetti junni yu mag buur yàlla yokkal ko bay maqaama yàllaw yoneen ba sax na ba ci junni yu mag buur yàlla yokkal ko fay maqaama yàllaw mawlid ba ne lam fa daa jaamoo ci làmmiñu kun subhaanahu malikul xudoosu yàllaw hijaabu taahati rabbil arsi moom la jateg muy jaamu na foofee ñaaru junni bi buur yàlla nangul ko nangul xeet wi yàllaaw mawlid ba ne lam fa daa jaamoo ci la miyu kon subaana rabin xadimin daayimin laaw kibiri jaabu sabaatin laa mileet biram mu xeet wi ci baatin wóor na yàllaaw yonnen ba sax na fa junniya bilaay kese bin biis ni rabbil mawlid ba nee lon ko daa jaamoo ci la mi ñu gul subhaanahul malikul ma boobu yàlla kiiraayi mawlidihil bari fii la ñu yem kiiraay xayril waraa jeexsil fa yàlla waatari na dari al Mustafa karaman dahran bi arfin sasin min ka yàlla wasalli ya nabi taslimin xalay bi wala wiiro bi rayaani yàlla delloo baaw waxaloo gannaaw kii daa yaa géej yamu aw baaruna minal bahri faw xal bahre yàllaawoo dagalal baaw waxaloo gannaaw kii daa yaa géej yamu بارد من البحر فوق البحر يا الله يعني دخول جيجي جيجنا كفرهم جرام يمنتنا في البرية الله يعني دخول جيجي جيجنا كفرهم جرام يمنتنا في البرية الله لو لير تكو لير ba weer ak Moustapha ga duggee ci géej gi leeri nga neelal yàlla yàllaw noorun xalaa nuuri min noorin yu nawiru naa li noori min noori anwaaru yàllaw fii bari nasratihi fii bari rahmatihi fii bari xudratihi géej yaa ngi yàllaw barul karaamati ma barul saqaawati ma barul hidaayati ñoo feesoon fa yàllaw بر سوادي وبر حكمتي وبر معرفة معلب يا الله keroog ba njool Makka xuusee géeji leeri basar di way ca moomeeli rabbal harsi yàlla bur yàlla xëy naa ko yëlbul mu toqe ci yow téeméeri jinne ñi teg ñenante yàlla bur yàlla xëy naa ko ndox mu toqi ci yow téeméeri junneeg ni def ñanant yàllaw hoolaay li bab xakkadul fii len biyaa iya wam min al wulufi wa rusulillaahi yàllaw buur dellu bindaat ca leeram boo gëjë waratam wa maa ubahim wa kullil hayni yàllaw buur dellu bindaat ca leeram googa جوارة وما أبي وكل الأين يلو والشمس والقمر أسنى وكوكبا مع الهواء والنور الكل يلو والضر والأرز والياقوت كالبدا كسى السماوات والأرض ما يلو بر يلا دل نكس ليرم كيب وارس مصحفايات بإذن الله يلو وعتر النظري المصطفى كرما دارا بأرض سسيم منك يا الله وسلم بتسليم علي بي وروي بريان يا الله دبل المغلا نبور دف ليرغا اك فامو دوك سبي يلا يا اك ndamam ya الله فبقي ساير با ñew leere ci adama gag la wax na batim ba la jaw yalla yalla taxañ na leer ga dugal ci lamp wekk aras zabina alfan min ahwaani yàllaw leeram ka sax fa juróom ñaar fukki junni bi at leeral na dunyan wa uxran booba yàllaw bur yàlla wooru wuya ak seen leeri yu baaras ñuy jaamu leerek rasulullahi yàllaw wër nañ aras alfa alfin aami junni junni bi at di xoo ca leerek rasulullahi yàllaw war nañu arab albasir junni junni baat di xoocalee rek rasulullahi yàllaw ñaa xool ko ñaa lanka xool ñaa war ko ñaa bañ a war ñaa gis na leen ñaa gisul leen booba yàllaw ku xoolutoon Moustapha boobee asal du ko gis duniyaan waaxuram te gamtiil yàlla yàllaw ñay raw keeroo la ñu raw ña des keroog la ñu des daagal ba ji tuuna xab lal kaw ni yàlla سلم الكون يا الله يا راوك لا يا دسجي لا يدس دوغل بجي كون لا الكون الله أكرم لن يروا نعيد الكرام لا يدس dogal ba jiitu na xablal kaw ni yàlla keroog la yàlla doxal leeral muhammadu naa li sidratil muntaha muy jaamu yàlla si toon alfan laam foofee jaaju ma xam ngir jaamu rabul wara xabaaru yàlla bur yàlla daldi wasal leeram nga wàcce mu ñëw li saabihin min sama illaahi yàlla xam soo nal fa laab foofee jaaju ma xam di jaabu rabul wala waabu yàllaaw bur yàlla dellu toxal leeram nga wàcce mu ñëw li saadisin min sama ilaahi yàllaaw faar ba hoona laam foofee ci junni baat di jaabu rabul wala fasaahu yàllaaw bur yàlla dellu toxal leeram nga wàcce mu ñëw لخالق من سما إلهي الله فغير جن لهم فوقك جمهم بجاب رب الورى رصاه يا الله بلا بدل دخل يرم قوات منيو مرابي من سما إلهي الله يسرون الفنلام فوقك شعر مهم بجاب رب الورى لرزي الله يسرون الفنلام فوقك جمهم di jaamu rabbi rabbal harsi yàllaw leeram nga wàcce bu li daalikin min sama illaahi yàllaw yonnen basratu alaagin mat la baab bii mi rabbil wara man aanu yàllaw bur yàlla leeram nga wàcce mu ñëw nuuran lisaani sama walarki yàllaw mu sax fa bilaa kasabin di jaamu baaril balaa yaa tëralaaw bur yàlla dellu toxal leeram nga wàcc mu ñëw li awalin min sama ilaahi yàllaaw mu tocc ci ya samaaw bii ñi maaliki naa bañ bind aadama bi salsaalee laaw keroog ba yàlla fa dee maam sunu aadama tën la leer gannaaw tabi foofee saw fa yàllaaw keroog ba yàlla fa dee ma am sunu aadama tën la leer gannaaw tabbi foofe sax ba yàlla ma am sunu aadama naa bu yàlla way toxalal leer moom nga duni ma xool ko yàlla ma am sunu aadama mboote Moustapha la tëloo moo tax ñu naa us juddoo liggéey ni yàlla malaaka yëpp a sujjoot Iblis su lank taxaw lil kibri wal kufri wal kufraani yàlla leeram ba sax ca gannaaw ak maam ja yet yet malaaka yaa ngay siyaare sappe yàllaw maam su naa dama naa buur yàlla waay toxalal leeram muhammadu mi ma xool ko yàllaw leeram nga leeral jëm maam su naa dama far malaaka yaa ngay si dóot li noori yàllaw maam su naa dama sël moo leer ga dellu tawat ni yàlla roob ko ci saa waa room yi yàllaw keroog la yàlla toxal leeram nga daldi ko sol ca sànni kaay mu janloog leer ga yàlla moo tax ba kuy taaya taayaa sànni kaay ba bu wér mooy sànni seytaane ngir leeram ga yàlla maam sunu Aadama janloog leeri saa ba yëdët na yàlla roog leer ci saa waaroom yi yàlla bur yàlla ñodil ko leeram taa ba kër mu ñëw mu roog ca diggal ba muy sataale yàlla Ousmane leeram ga ak leeru Omar ga mu am moom lañ defal ñaari waaroo mam ñayallaaw xali yay dara baaraam déem la tanoo leeram nga jalli na fil asbaati yallaaw lee tax ku xam buy tasab doo gis mu ŋàbbi ku xam buy tasab doo gis mu ŋàbbi kurus waaroom ya lay fab ba jot seen boot ya yallaaw اسقيل من صبر مولى بيدوي خصبت مول أم لا أمجاد يلو اسقيل من صبر مولى بيدوي خصبت مول أمجاد يلو لما كان آخر النور مصرع وكزاز أنوار أسابه للجدي الله واتر ندر المصرع كرما دائما بعرفك سلسيل منك يا الله وسلينا بتسليم حلي به ورويه بالريحان يا الله دبل مغلق أسلف يو شاد معك ينني أجل لك ما مم يا الله دين شاد معك دمانا يسو كلهم يجير لمنك يا لمنك يا الله دين آدم alhamdulilah na tee su ko lim yii téere lim nañ ko yàlla nañ ko yàlla lama araada ilaawul arsi isaaru xayril wara fi naasi yàlla lépp na aadama def ko tan ñeneen fukki fa buntu aljana xablal xalqi yàlla leeram nga roogu ca maamam aadama waraloon buur yàlla jéggal ko lama taaba yàlla ab leer ga ruuga ak kattan nga daldi ko sol mu daldi jóg tisli ànd ak sant yàlla mu bind maam sunu Hawaa boole leen jalasal mu sol ko leer ak rasuulullaahi yàlla keroog ba ambee siis leer ga doxoo ci léegi Aadama xandeeg Awa keroog ba siise juddoo leeram Muhammadu xëy tukkee ca ñoom ñëpp xam ndeeg siise yàllaaw bur yàlla daal di wasal xam siina min ku tibin yónnee ko siise mu ànd ak leer ga yàllaaw leeram nga sa dox ci daayoo xam ne daawuñu mooy ñi leeri taaxaar rasulullahi yàllaaw leeram nga sa ci daayoo xam ne daawuñu mooy ngir leeri taa rasulullahi yàllaw min taayirin asanin li daayirin asanin li daayirin asanin fii jadi yàllaw yaa taayiral asanin ni taayiral asanin ni taayirin la Sëriñ Tuubaa waxoon laaw yaa taayiral asanin ni taayiral asanin ni taayirin la Sëriñ Tuubaa waxoon laaw بلمس البود كلهما كبوت أمدتها بالرلاو شرنا نار خليل الله إبرا كل يلا يا نار كوني فإن يلاو نمرس كرحنا لفاي تالم بصبكم بلن بالك سلاما رينا يلاو إدريس يونن بما فبلر جدل جبو بريا الله ينيكو بالآيات يلاو idrisu daana wasal fanweeri tiir ñu wér ci benn bés dooro wër moomel gayalaaw idrisu daana wasal fanweeri tiir ñu wér ci benn bés dooro wër moomel gayalaaw waxum noo xadun turwa wa day dëcëg dur sabadan moo tax ñu far naa ko yaa idrisu yalaaw isaaxa yunusa ismaila kulimu ak seeni kem leer ga lañ taawoo fa yàllaw yanqooba lawlaa rasulullahi maa bari at haynaahu min ramadin lil husi yàllaw gëtam yu muuru yow mustafa la gasol xamee sur yusufal delloo gis ba yàllaw gëtam yu muuru mustafa la gasol xamee sur yusufa delloo gis ba yàllaw bii uniinu li daawudul hadiidu bii loolee la Seex Bamba wax fii nasmi yàllaw bii uniinu bii uniinu li daawudal hadiidu bii loolee la Seex Bamba wax fii nasmi yàllaw leer nga sori ci mooy am fa bi at fay noosatun bintu ibliil ci booti taaha la noon beeña lon ci rajab tufaana war gaal ga ànd ak yiw ma yàllaaw labal bañam yëpp musal sobbee ña jàll ñoñom teral ba keem ba xelal juudi yàllaaw nuurul jalaali kamaala taar ba yuusufaam ci leeri taala sërmoo ndox ma yàllaaw budul kono Mustafa daawooda man ci la rey jàlloo taataaya naalal mulka yàllaaw ayyooba raggam ga daa du cir ye yaa ku yow Moustapha may ko ni man habdu yàllaaw leeram duut doomi habdulaay moo ko jagoo wa kaana min arabin aqaafi yàllaaw wa saalihum doomi kanookin abo harabin leeram nga moo ko jagoo aboodi yàllaaw wa saalihum doomi kanookin abo harabin leeram nga moo ko jagoo ak boot yaya naaw yaa tax Suleymaan daa xëy war ngelaw di dawal xam nga jinnim yaaj ngenaaw yay woot yaya naaw xuduwaa mislu shahrin wa rawaahu kaza yaa tax mu not bal xiis yaya naaw xibtub Suleymaan ba zawtu lañ bu yaa nda ca kaw yow Mustafa yaa di mbootam tur waya naaw xejum Suleymaan ba sawtu lañ bu yaande ca kaw yow Mustafa yaari moo tuntur wayalaw budul kono Mustafa Muusa du xam ku ko naa maa fi yamiini kaya Muusa kayalaw yaa tax mu xar bahru xal suumin ñaaw ca ba wey Firawna ñëw lab ca mook mbooloo mayalaw Iisa nu Maryama yaa gobruugayu baaras pexem yowut yegey saa mi ndayalaw waa daareet na daari ala mustafa karaman daara daar vilzafi yana minka ya allah dëblul maxlaatit siina bim jamuy caarab minal manaawiyu moo way lool la yàllaw dëblul maxlaatit siina bim jamuy caarab minal manaawiyu moo way lool la yàllaw badal sumoosul hudaa minal niqaamati wa gobal kawnu min amwaarillaw wal kaaynaatu hiya yi mustafa xuliqat dunyal wawran jamiihan minu yàllaw هو أول الحق سر العالمين فيه كذا جميع البراء يا منه يلو لولاه ما أوجد الله وجود والعاف قد كان ما كان إلى منه يلو هذا الأنبياء مجل ومكرمة وما الذي رسله منه يلو هلا بي آدم أزناها العار تبا وللخبال جنا في سلي الله لا ملائكة رحمن قد سجدت سجودي سم ما تفي في الله مصلى في زي نور النبي وما بعد السجود إلى نور الله إدريس لما دعا لولاه ما أرتبت إن المهيمن أقدار لولاه إدريس لما دعا لولاه ما القبات عند المؤمن أقدار لولاه ويونس الفضل لما بالهدي بدعاه أنجاه مولاه وراي من هود الله به توسل نوح فاستجيب له نجا ومناه في الفلك يناه نجا من النار إبراهيم الفارس أراه رموزه في النار يلو نجا من النار إبراهيم الصادق ألغاه نمرزه في النار يلو وليس به في الدم من المغالقنا جاء الأمين به للبر يلو يقوب العاد به من كبد نسلت هفاه مولاه منها هدينا يلاه وضر يوسف مولاه عليك تعال أرسال هذا له من بلد يلاه أياب من دري لما استجار به أبراه رب الورى من داء الله داود من شره نال الهجد له وأتي الحكمة وتغيب يلاه داود من سري لان الحديد له واتي الحكمة وتغيب ويلو بسليمان نال الملك منفردا إنسان وجنا وريا زما يلو موسى على تور ما جاء الكريم به كان الخطاب له في زير يلو بك فالله رسال مكر من أبدا مكر اليهود له رب الله لولا لولا ما خبر السماء وهلا وما ارتقى رسله إلا منه يلو والأنبياء أبي جل ما تبوا وما هو مجنون إلا بالله والأنبياء أبي جلت مراتبه وما هو مجنون إلا بالله بجاي يداي وجو أرنا ومن علينا بيش منه يلاب وهكذا مدر يا المستوى كرم دورا بأرض سزين كلاب وسلم بتسليم هليدي ولويره بريحان يلاب دم ما وخلاف له ركب زدافا هجمعنا يا الله دجال الماء وغلاف له رد مزقفا قسمه جاتي من من بني هجمعنا يا الله غير غير غير غير غير غير غير nga yàlla yaa doy yàlla yàllaaw yàllaaw garab yi dañ Haasim ñanaa ya di wax nga yàlla yaa doy yàlla yàllaaw yàllaaw ba leer ga siiyee ba buur a wul si déggu ko bis ak Qaysar ak Habasar waaloo ma am la dëgg naa ko danoo bëggoon nga dem ci gisum xaskan wi mu tàgg bàyyam keroog Abdul Manaaf ma fi woon mu dénk ko dénk bis ba mu faatu yàlla mu tàggu baayam keroog Abdul Manaaf ma woon mu dénk ko dénk bis ba mu faatu yàlla bul denc bintu Abdu wallaay foo mën a jëm dencal ma bintu abi bintu Abdu wallaay foo mën keroog laa simra ñaan armal ba aj fay soxna yàlla mu tëdd guddi géwén bur yàlla naa ko bintu hamrin foofa yàlla salmaamu taahiratul asyaali taahiratul min taahirin asanil axlaaxi yàlla salmaa saqiyatu xawmin saatu makrumatin مقوزة الحين ساة الوسي الله سما سقية قوم ذات مكرمة مقولة الحين ساة الوسي الله سما كثيرة مال أمها وأبوه هقالها من بني مجاري الله هاتم كروب dégg na mbég moo xam ne ëpp na xel ba ñoo xibaar ko ñoñam bi xaqi yàlla keroog la jóg doomi baayam yépp jóg ñu ne mes mu talli bay ma jayor siin bi yeeyalaw mu talli bay ma jamoo wax daaya yépp na leen ku yàlla jiital bu leen koy jiitu yàllaw ñu dal di ko jox yére yi xadanaa ne yépp mu sol seen maam yow dañ ko daa donante yàllaw daraa yi maam sunu Ibrahima lay jëkka sol فابدل في ساقط نوح بيلاو نوب كلاب ترى لايق لؤي لكتك من تم قصي مغنم إلياس يلاو نبالك قوس إسماعيل فرسول من جنوات كنساء المهدي يلاو jébal ko caabi kaabal màgga foofa mu yor siqaayatul hadi mooy xalifa yàllaaw bokk na jiital ko ànd ak moom maa gi jëgër salmaate boo man ci réewam saameelaw ñu dem nu yog baay ba ak bokkam be dal di labat ñag naa ñi lay ahlu baytilaayi yàllaw banoon na jaar na jaar dal di sam bopp xayma dal di dalal ca diggi marché ba ñuy waaraate yàllaw waa ma ñëw di yoo aasib nu yoo bu rafet naa mën a ban saayi dal anwaari yàllaw war yi mu ñëw dindi yoob aasim yuubu rafet naa maraban saayiban alwaariya yàllaw salmaañu waajal ko gàngooram nga dar ko mu jóg yaasuna jaban yàllaw yàllaw baayam ba sambal ko ab xayma burus bu rafet te dëngëreeb kër ga ngir mbooloom a yàllaw ñu daldi woo gan woo salmaa ñu daldi na yoo gàngoor ga sal min anwaari yàllaw kere ba salmaa gisee aasim la ret na nërëm ngir leer gaag taar ba ak wàccaay wa yàllaw kere ba salmaa gisee aasim la ret na nërëm ngir leer gaag taar ba ak wàccaay wa yàllaw ñu daal di jiy daal di may aasim mu daal di ko jël seytaane mer na may ga yàllaw mu daal di ko seytaane nar na kéro ngir may jayalaw barke borom Tuuba ñu dal di géey dal seytaane nar na keroog ngir may gayalaw seytaane ñëw na keroog soppi ku nit ku taxaw digin janaa bintu amrin nii nayalaw banoon na jaar niñ bare njàmbaar bare ko alal salma di nii seyaan ndaw njobe yallaaw iblis koro jóg naa sim rokko ba joba daw ngir leer ga génn keroog mbooloo ma yallaaw aasim defal na ko goo xam ne bañ ma su goo gis nopp déggul ko fiil hurbaani yallaaw téeméeri naaga la rey junni la faaf sal maamu jox bokkama ya yàlla woo téeméeri naaga la rey téeméeri junni la fa jox baayab sal maamu jox bokkama ya yàlla woo téeméeri naaga la la fab jox bàyyi salmaamu jox bokkam yàllaaw ba ngar nga xàjjee mu wax bokkam yi yëpp ñu dem ñu dellu makka bi isnilaahi yàllaaw keroog ba salmaa hambee haatim di waaj bëgg a dem farfaatu foofee ci réewam saame yàllaaw mu bindaat dénk jox bokkam yi yëpp na leen nañ jël si seen doom si delloo makka yàllaaw te fa birim yëpp jox salbaa mu denc bu wér bu baalixee fab ko muy lam doon na yàllaaw mbooloo ma marsi yena yaasin te jooy ko bu wér danaa ci wax wenn ngir mawlid ba yàllaaw mbooloo ma marsi yenañ aasim te jooy ko bu wér danaa ci wax wenn ngir mawlid ba yàllaaw ma daar min baydikum yaa seydi daaru kalaa walal jaaru min baadil fama jaaru wala nisulati qad kuntahu bi wa badda anisan wala anwaaru anwaaru xibtum faawa sama dunya li gaybatikum wa sama badukum rabu wa aqdaaru huwa alxalbu hayraanu wa alfaanu shairatum walhuru murun wa sawul xiisi aktaaru لدى الخراب الذي ينعى فرقتكم هار من ريش لا تهي أو كاب واعترم نظر المصطفى كرما دهرا بعرف سسيم جاي الله وصلينا بتسليم علي بي ورويه برياني الله keroog ba leetal baa jee makka bopp ya bopp yirim yi jébbal mu talib ma jayalaw mu yor xalifatu gaag saay sa lépp di dox ba ker ba salmaa mu cee ndoomam sa yàlla mooy say batal xam di leer ba dal ca xar kanam ba ñu janloog leer ga yàlla moo jëkk dëg ma ci leer ak mu sabaaga mu naa la bayka bis ca ndiggam fii jëri yàlla mu sax juróom yaaret foofee ba leer ga ab rabbi gis ko di xemmem leer ga yàllaaw tur waay xafiisatu baayam baaji laajiyatun ñu siiw tur lañ ca la bay saam ya yàllaaw mu daldi koy dóor ba sëg boppam ba labbi yi ñëw mu daldi gàddaay fa ñoom jëm ak yàllaaw baayam mu talib la jeeg moom xam ne say ba tafar mu far ko teg ci gëleemam sant yàllaaw bésu keroog la juróom ñaar fukki labbe dawal jot leen ñu xeex dàq leen bañ ci jiire xarab war nañ keroog jëm ca saam ya yàllaaw keroog ba ñu ñëw ba jubaa Makka ñëpp a ñu fal ko jox ko yére yi baayam ba mu mel na baay ba na loon xëy sol la baay ba solon leeram ga jol lii bawal waa maaka yaa laawo mu mel na baay baam na lon xëysal la baay basaloon baara taxab baay mu dalli na yoo jenna leen saa jaama ngir garagal siin bi ya yàllaw baay taxab bay mu dalli na yoo jenna leen saa jaama ngir garagal siin bi ya yàllaw moo tax xaram naa ba tey habdul mu talli ba bar nda sey batul hamdi moo doon tur wa yàllaw ñu tey ci ay fan mu talli dem yaman bi la baj farfaatu foofa xalal mar wi yi yàllaw waa Makka ak Medina saaf ak Yaman ña fa des jébal ko réew ma mu def xalifa yàllaw mu tëdd guddi génn am ndox mu wër ko di wal mooy biiru sam-sama teen ab Makka yàllaw mu yeew gas lu ko ndox may wal wali safi des te mus la am ndox te gas bés booba yàllaw noonam ya naa ko xuraysin gépp gépp gas moomoo ko teena ñëpp a yàllaaw noobal di di xuloog moom naa ko ñëpp a kiyam mooy biiru ismaahil a yàllaaw sooba keroog xuray sin xëy bis calabe boobee fa saab ngir ndox ma yàllaaw keroog la giiru xuray sin gépp jóg wari fas ñaawar dawal jëm saam a abdul muttalib a jóg ka daa fa suufar ba nafteen wóor na yàllaaw keroog ba ñuy ba mar abdul muttalib a jóg ka daa ba nafteen wóor na yàllaaw mbooloo ma dal dina jébbaleen ak batalaay ak caabeem ñu far waññeeku keroog jébal ko màkk bu wér ba dog min bañi haddnaan ayalaw واعتقم نظر يا المصطفى كرما دهرا بعرف سجيد منك يا الله وصل النبي دلي من حليبي ورويرنا برياني يا الله keroog la noobal di xas Abdul Mutalib ba far ci néegi doom ngir kañaanam googa yàlla mag naa ko doom mën a moom sam-sam te doonu yilif makkaa ki yatiir ba dooleen moo am fa yàllaw mag naa ko doo mën a moom sam te doo nu yilif makkaa ki yatiir ba dooleen moo am fa yàllaw keroog la Abdul Muttalib mer ba jooy fa barus ba dem fa kaa gañaan fay doo fa yàllaw yàllaw yaa rabaatal bay ci dagaan bés boo ma war sëggalee ay doom fa yàllaw danaa la sant ba fukkeel ba muy asakaam lu màgg màggit ba jël su leer ga yàllaaw yàlla nga naa ko looy mën a bu ma war man yàlla kat du ma war kuy woote yàllaaw abdul mutaliba gin foofee ca kaaba wa ne yàlla noo def danaa def noona yàllaaw buur yàlla daal di bindanti ak moom ca kun la mu wax danaa la may fukki doom yi woote yàllaaw buur yàlla dal di bindanteeg moom cëkkun la mu wax danaa la may fukki doom yuy woote yàlla ñoo xam ne seen day ñooy gën jëpp doomi arab te ñoo yilif noofal ak seen diir ga yàlla Abdul Muttalib salam rongo ya dellu këram réerul keroog nelawul ngir mer fa yàlla mu tëdd guddi ki wén garab bu sax ci ndigam te per ba laal asamaaw ba sar ca ñenantu wangaas laam yu gudd a gudd ba daj yenanti xeble yi ak meññet ba yàllaw reenam ba sar na ci suuf si ba da tasaree te xaw wu nekk xam ak ruufoo fa yàllaw mu gis fa daatam bowlu nas mi ñëpp di wër noon way saa wa ibrahima yàllaw moosa muhammadu ak xeeta wa ñëpp a taxaw yendal fa kër ga di for meññet ma yàlla ba ba setee mu xibaar kobla bi fóor a juri jaaw mooy tura fil hijaasi yàlla mu naa ko laa sàkka fii ruyaa kaanaka yaay maama muhammadu abdullahi yàlla abdul mutalib bayee ko foofa dellu këram buur yàlla xëy naa ko dencal soxna yàlla mu jël juróomu xarab ñoo xam ne ñëpp a rafet am ngor ci am diine xamas kan fayalaw mu xaawaloo dinduwaari min haduudi turam taawloo ca xay daxal teg aaris fayalaw ñaareela furaaku siiwan bindu xar daxawal moo jur diraa teg ca xabas saadu yalaw ñetteel ba mooy bintu wax xaalatoo di turam moo jur mu xawama ak subayru yàllaaw ak saydi soadaay xamsatoo di turam jàmbaari xaybara ak unayni yàllaaw ñeenteel aminatin mooy binti haajiri woon moo jur aboo lahabin xaysaat lu yàllaaw mu dellu jël bintu hamrin moo di faatimatin bay bay kenul ji bañi maxsooma yàllaaw moo jura boo taalibin baayu xeliyu ma woon te baayu yonen ba abdoulaye yalaaw leeram nga roofu ca abdoulaye melax te fekk moo doon fukkeel ab doom ya yalaaw diggante yaari gitam yaa ngay melax bu jógaa mi jant lay mel nga mën waaw dal bay ñëw ne caar mi la gat mooy bàyyi ahmadu abdoulaye yalaaw ngir nun gisoon man ci suñ kiire cosaan ci lu wér mandarga moo xam ne dencil faw yàllaaw ngir noo ngi dencoon bu mum yaxyaa ca booba ba tey suñ maam yowoon dañ ko daal doonoon ca yàllaaw bu bu maa nga def dañ mi yaxyaa damm ca wow bu bàyyi yoon nen juddoo lay tooy fa yàllaaw te bii ba tey damm jaa ngay toq toqi di wal mooy taarixam xam ne Abdoulaye yàlla waatari nadari al Mustafa karaman dahran daafik minka yàlla wa sallima bi taslimin alay bi bi rayaani yàlla yahoodi makka ya yónnee saandi yaman naa léegi lislaam taxaw bi diini yàlla baay Muhammadu Abdoulaye juddu na tey mooy toj këram dan mi yee fa tuuru yàlla baayam Muhammadu Abdoulaye juddu na tey mooy toj këram dan mi yee fa tuuru yàlla diggante laa taw saat man aata ñëpp di seru këram yu ndaw ya di faqi daanu yàlla ba baay ba toogee ba Abdoulaye yam fukki at ba leer ga jolli ba wër waa Makka yàlla mu tëdd guddi géwén lëf naa ko fàttalikul fàttee ka bon ci behel yaa haddu yàlla mu yeewu jooy ngir yaram doomam yu baax ya mu jur xam ne ko yàlla lu mu fas def ko yàlla keroog la woo doom ya wax leen mbir manam doxewal ku nekk jébbal ko sagu foofa yàlla ña nga naa ko bul fàtte ibrahima selwatu woon keroog ba muy rendi ismaila yàlla nun doomi buñ fàtte ismaila kontinu ndax yàlla tabbal nu fii janaati yàllaw mu dellu woon na ya wax leen yi kat ku nekk jooy dellu seen booba yàllaw mu boole leen ñu tegoo ay wanti ngir bëgg bab dee ba ñëw dal jël abdallahi yàllaw keroon na jooy yoo xam ne ëpp na bintu hamrin gëm na yàllaw keroog ndeyam jooy na jooy yoo xam ne ëpp na xel fatimatin bintu hamrin gëm na yàllaw la woo ci maxsuuma ñëpp ñu ñëw ngir bëgg a doom ja abdullahi yàllaw kii miiri junni la xeetam wépp daldi sasoo kii naaga baayam sasoo ay junni yàllaw kii miiri junni la xeetam yépp daldi sasoo ci naaga baayam sasoo ay junni yàllaaw ñu fa kaa bëgg a jéeg yàlla ngir bañ a rey doomam ja yor leer ga ci njëmiir foofa maa amee ku saabat ci dee su ko tembat gom naa yàllaaw ñu daldi teg doom ja abdullaahi bay ba garay ñu woolu ak kiramatan kay mag fa yàllaaw mu ñëw ne dem leen ca la laaj ko ndigal moo fi wax ak yàlla bil asraari yàlla la mboolem xulay sin dellu jóg way fas ñaawar jiléem ñi dawal jëm saame yàlla ñu dawa fanaan wax ko la dem samba ba jóba jóg dii yëg boroomam ne leen bég leen fa yàlla fanaan wax ko ba jóba jóg dii boroomam ne leen dég leen bàyyi laaw dem leen te sàkki sarat rey fukki naaga yu mat ba mat li ma fukki fan ngeen ñaan bàyyi laaw ñu dellu makka di rey ba mat li ma fukki fan ñu dem fa kaaba ga ñaan buur nangu yàlla ñu daal di daw kiri ab daala yi fañ ko tërum

sangat ko sangaat ko cangaayi amul ci arab fu dul ci reeti bani maxusoo mayalaw abdul mutallib bégal waa makk ay fani fan ci xeeti ñam ay rinaat foofu ayalaw giru quraysin banoo maxsuuma ñépp di way ngir sant yàlla ci abdul daayi yàllaw keroog la labbe bu ñuy wax daani yàlla defu ñam dem tooke ñam wa ñu yët waa makka keroog la labbe bu ñuy wax daaniyal defu ñam dem tooke ñam wa ñu yët waa makka yàllaw ñu ñam way fexee mos ñam wa wax ci lu ñam waa ne foofa dañ maa tooke yàllaw keroog la xar baaxi yonnen tàmbalee nasaxal pexem yahood ya ba tey duñ ci lu yàllaw lee tax ñu tudde rasulullahi fii jaxarab im sabil hayni fil marwi yàllaaw lee tax ñu tudda rasulullaay fii jaxarab im sabil hayni fil marwi yàllaaw kareen di war maam bi ismaila xar ma taxaw moo del si ñëw kii abdullahi yàllaaw lu yàlla def loo ko bañ bañ bañ asal danaam lum dogalul soo ko dee jéem xam ne dollaaw lu yàlla def loo ko bañ-bañ bañ asal danaam lu mu dogalul soo dee jéem xam ne waa te inna dari al mustafa karaman dëran daar bi sati min kayalaw wasaliya nabi taslimin halay bi warawi rooxa rayaani yalaw déglul maax la ba baaya mustafa ba amee kenn nit ki at ca quraysin déglul ma wax la ba baaya Moustapha ba xamee kenn nit yat ca Xuraysin siiw na yanaaw réew yëpp dog di ko xemmem makkata ki yaman waa saama guuma ak waa siin na yanaaw hindul wa salma wa laylaa sépp law sharab xëy nañ di neexal si abdoulahi yàllaaw mu dégg leen daal di dem baytil muxaddasi ngir pexem jigéena te jot yuusufa yàllaw ngir makka daanañ ko woo bis naa ko yuusufa far ngir taar ba ak leer ga ak sempal ga yàllaw ngir makka daanañ ko woo bis naa ko yuusufa far ngir taar ba ak leer ga ak sempal ga yàllaw ca yoonu saab la ko wax bin mbaay gis muy dafanteeg xayoo bab la be yàllaw mu rendi labbe ba dóor mbooloo ma dàq ñu daw mu doon gànnaayu jox waa ma kayalaaw keroog la wax bin giseeg soxnaam sa bara duwoo ñu may ko aminatin lillaahi yallaaw lisaanu haal dal di raw foofee ci la mi ñu biis mi rabbil waraa may leen ko yallaaw baxin baxin min fataatin waxi aminatin أم رسوله أبي البتول يا الله بغ بغ من فتعات وهي تائرة طوبى لمن حبها لداي يا الله بغ بغ من فتاة وهي تائرة طوبى لمن حبها لداي يا الله keroog la daal di rañaan dem Makka tàggu ab woo baay ak ndey jël ak bokkam yaa yàlla abdul mutaliba woo waar yu ma dem ci réew abta ngir ñaanal ko yàlla ñu fa biri baay ba ak maamam ya jox ko mu sol mbooloo ma sënku ko gay dolli yàlla ñu dem ci seeg bokki waxin baay aminatin ak baratun mbay ja ak waa réew ma yàlla bésub dagaan ba aboo taalib la baay ba digal ma xut bu mbooloo ma tey sante yàlla baayam nangul ko keroog jibril wax na ca kaw xut bu jëm asamaaw ñuy dégge yàlla wa sadratil munta ajawa aras bi sabar wa looro wa doolu wa lelo daa di tëj juróom ñetti far lañ wax ci maamu koor lii la mawlid wax fayalaaw ñi tëj juróom ñetti fan lañ wax di àjjuma far ci maamu koor wax fayalaaw a faatu ngir xemem ko yàllaaw keroog ku tey la du xaw naa faatu mas naa dikkal baay ba kii ba njox ko junniy rong diggante xaali suus ak ya yàllaaw mas naa dikkal baay ba kii ba njox ko junniy rong diggante xaali suus ak ya yàllaaw barke bam ko sarab day bis bi siy jooy di xel même taar ba naa ko sarab waay jël ma waay jël ma Abdoulaye yàllaaw guddi keroog la ñu dox réju keroog la ñu waajal soxna Aminatu jébal ko sangam ba Abdoulaye yàllaaw keroog la hajjana waaj ñëpp jàpp sollu maam ndox mépp saf lem wóor na yàllaaw keroog la yàlla yabal jibiilu bàjjo ba dem ci bii yónneen yow fam seen boot yayalaw jibrilu rekki na selak aadamaak ngërëmal isaaxa jox doomi abdulaahi yalaw jibrilu rekki na yërmaandee ci xol bu woyow ba wan ca nooyin takkal xejam ba yalaw medaaye maam sunu ibrahima daa laxasoo lañ teg ci jox doomi abdulaahi yalaw lamiñu yaaram ismaila a qalamam sooci wi lañ wekki jox xejam bayalaw ayooba muñ jox amoon ak taar ba yusufa ham lañ boole jox doomi abdulahi yalaw yaqooba cantam ga ak dëddu masiihu gawoon lañ boole jox doomi abdulahi yalaw daawooda baatam bu neex baat tedd ngay kañu hiisa la jagleel rasulullahi yàlla daawuda baata mu neex daal te de kañu naa hiisa la jagleel rasulullahi yàlla nguur ak suleymaan ga ak sañ-sañ babam na ko doomi abdullahi yàlla nguur Muusa da doon jéem a géey ak yàlla woo ko ñëwul Jibril woo doomi Abdulaayi yàlla Muusa da doon jéem a géey ak yàlla woo ko ñëwul Jibril woo doomi Abdulaayi yàlla baa ba ma yoo baax yaa yëgëy saayir ñoo ko jagoo moo لي بعد يا يا الله ما مم يباهي يري ساير يا نيوك جبو محمد صل يري باكن يا يا الله واعترنا يا المصطفى كرما دائما بعرف سجيء منك يا الله وسلم بتسليم هدي بي ورويره بريان يا الله هذا مال الخيام لوجوب تسليمي على خير النام السلام عليكم يا زين الانبياء السلام عليك لقياي السلام عليك السلام عليك يا سالسياي يا سلام عليك يا سالسياي السلام عليك يا أحمد السلام عليك يا محمد السلام عليك يا عطاء السلام عليك يا ممجد السلام عليك يا معي أوزار السلام عليك يا سايب الأنوار السلام عليك يا مايا الشنوب السلام عليك يا جليل الكروب السلام عليك يا زهر الأنعام السلام عليك يا بدر التمام السلام عليك يا دار البصائب السلام عليك يا بر الشقايب السلام عليك يا مصور الخيامة السلام عليك يا مشغل بالخمامة السلام عليك يا متوجب الكرامة السلام عليك يا خلاص السلامة السلام عليك يا متوجب الكرامة السلام عليك يا خواتي يا يا خلاصة التهامة السلام عليك يا سنشرات السلام عليك يا صاحب العباد السلام عليك يا ركن الصلاة السلام عليك يا داعي الفلاح assalaamu alayka yaa nuuru sabaa assalaamu alayka yaa rabba zamaa assalaamu alayka yaa xaral xalaayik assalaamu alayka yaa afdali kulli naatiq assalaamu alayka yaa nabi wa rasuul assalaamu alayka yaa ababatool asa kayilu tarwiw asa mustafa asa jamiil waji asa awhadu asa jamiilu naati asa murtadaahu هذا ببلاي هذا زيد مرتدى هو سند مجتبى هذا مرتضى وهذا مجتمع وهذا منتقى وهذا مصطفى صلى الله عليه وسلم وفي مولد درج نسيب وفي مولد سمين هذه قصيدتي لمدي نبي لمي آسى نبي ردى آسى سجو قدام هذا سراج الذي لا ينتوى أبدا هذا نبي الذي ترجى زباته هذا الذي نوره قبل قنام بدا هذا الذي جاءنا البشرى فمشي به محمد المجتبى نعم شفيع غدا هذا الذي داتي بجال مولدي وسالم منها سلام شكر وانفخدا هذا الذي كوثر هود تهور له تسع كنجوم حدها عددا هذا النبي الذي خالد جليل له منشر الناس تسيما لا حددا هذا الذي جاء بالآي الذي أجزت أهل البداية مثل لا أبدا هذا الذي خلوات البراق وجال كالبرق السمراء العزيز عذاب هذا الذي قد جاء ويخادمه من شاء ينازله في الكون أبدا هذا الذي شق منه جو ثم ملا علما وعلما وأدها سيدا شردا هذا الذي خرج أجدام يمات مدين يدعو ونار شجر قد قمدا ومع بارزة قد صارت ونارهم من أجلي غمدت من بعد سار صدا هذا التي قد بدت في الكل شيرته ووسمه واسمه في رزق قد وجد هذا الذي أسر الإسلام دعوته أهدى بدعوته من كان مقتدسا هذا الذي أزر الإسلام دعوة أداءتها بدعوته من كان مقتدسا هذا نبيكم هذا ديبكم هذا سبيكم عند الحساب قد أسرى لي إلهي هبوا وهدى وقسوا بمقام عنده سهدا صلى لي داود هبا وادا وقزوا بمقام كندو سيدا واترم نرى المصطفى كرما دار بياد جزيء من جيماو وظل النبي دلي من قلبه وربي بريان يلاو الحمد لله رب العالمين هلا محمد نجل أبلاي يلاو alhamdulillahi rabbil alamin allah muhammadun majlu abdullahi yàllaw abdul mutalib du mooy maamam taa si ma doon bàyye mutalib ni lee yor leer ya yàllaw moo doon abdul manaafi moo di doomi xusay tagal ma majlu kilaabin waaja yàllaw cey doomi mudrata yow mi way wayal kahabun ويغالب فيهم عما يلو والمواجر مالك ندرة وكنا ندق سيمة ينويك لا يلو والمدرك إلياش ما مدر نشار ما ببني أدنى ما يلو أدنى نجري رمام في للمبديم جيشا ولا جروي جري الله يلو جيشا ولا جر رنغو kërilee jaranas digal balaay way rasulullah yalaw magal daanu maama waa jinee manaam jaari si jabluñ araar mal faw yalaw ke ahmadul mustafa yaa mat ba matti matal kuy man matee biyam te hantam til go yalaw samaam yi baaxi la daa di jam fi ñooy sa fajar yaa mustafa yaa rasulullah yalaw samaami baaxi la yaa dib jant ñooy sa fajar yaa Moustapha yaa rasulullahi yàllaw waatarin na dar karaman dëran daar fin sasin min ka yàllaw wasal ya nabi taslimin halay bi wala wiiru bi rayhaani yàllaw dëglul maax la keroog leerub rasulu li ummi min abi fil bari yàllaw bésu keroog la ñu teg baabu jayim ko saar ci baabu nay min boobee law la yàlla na maalik bu leeram te tëjal buntub jahannama ñu yàllaw ko gaawal bul werante wubil janaat waa benin bu ñu barkeelu ci weeru rajab yowmal hubati sanga bi yàllaw ni rajumaay saydu layaami kulli moo yonnan ba mooy xayru xalqillaahi yàllaw ni rajumaay saydu layaami kulli moo yonnan ba mooy xayru xalqillaahi yàllaw bésub keroog wañu fa mboota ma mbir ma sosoo ca ndey ja tukkee ca abdullaahi yàllaw ne leen suñuy nopp lii bar seen ji oo ko tëral ma way ko ngir xam ne suñ yonen bayalaw guddi keroog la xiram ser jooy di yuxute naa yaa wayl ahli rajimin faw yalaw andel na xayral bara yaa mustafa yi lefan bindim na abdourahimin tey fa yalaw daanef na kéefar te lislaam jóg na taw iblis jooy di far rongoñ ya yalaw malaaka yëpp di sabal toola laylati subhaana xaaliqu asa xalqi yalaw subhaana xaaliqu nooril mustafa samanan mi noori fawqa noori kulli yalaw jigéen waa jana urul ay ni di way naama raban saayiba janaati yalaw jigéen tey seetu tey naa maraban shaayiban xusóor ya yàllaw ñii war di sangoo ka naan min naa yi kalsari naa maraban shaayibal akwaab ya yàllaw ñii war di sangoo ka naan min naa yi kalsari naa maraban shaayibal akwaab ya yàllaw waa tari na daral Mustafa karaman dara daar fi sasin min ka yàllaw وسلم بتسليم علي به ورويل برياني الله moo tax ba aadama ñëw ci weeru rajab siyaare moo tax ba aadama sun maam ñëw ci weeru rajab siyaare bee murmal yu basiruha bi anna amalat safihi ummati fii yawmi yàllaw di wax ndeem nga la yow damul te sant bu wér yaa ëmb xayral baraar yaa anke yalaw raadiyan bi rasuulil mustafa hajaba min rabbiha mara adul xablu yalaw yasuura jundu waram daa ku musamalat ilaa wilaadati xayral xalqi yalaw shahbaan ma yaari weeram si sadal di taxaw siyaare bee mu naa la bayka yalaw te naa aminatin deel na bu la bi amal ci siru wuloomi laayi yàllaw te naa aminatin deel na bu la bi amal ci siru wuloomi laayi yàllaw way ndax waali xamaata wali dewoo fii sari sabaana bi mari yàllaw ci weeru koor la fa ñëw siyaare ndeyam begal ko naa ko kileey muxtaaru yàllaw kenaa ko yaa ëmb xayral aalamiina maan zabinatul ilmi wal ahmaane yàllaw ci weeru sawaal la leeral Mustafa di melax ndeyam di seetu ca booba yàllaw ci weeru sawaal la leeral Mustafa di melax ndeyam di seetu ca biiram booba yàllaw leeram nga faw xuna leer ak jant moo rëy ngir jalam nga moo lii nga yër mawlid bayalaw keroog la sirwaa xalilullaah ibra taxaw te moo di maam sunu ibrahima yalaw bésu keroog la ko naasur naa ki aminatin yaa bi samsul waraa billahi yalaw soo xis datim calam noorul jalaali baam nuurul jamaalin ni weer wuy fekk yàllaaw soo ko dégg jalaal nuurul jalaali baab nuurul jamaalin ni weer wuy fekk yàllaaw keroon la maam sunu Ismaayla daldi taxaw siyaare leer te naan nan sant yàllaaw mag naa ndem bala wax la lu lii yaa hëmb xayru quraysin ni ma yàllaaw moo tax ñu walmarwatayni maan wa samsamin wa tiimin wóor na yàllaw xeew tabaski la leeral Mustafa di melax kamaal ba jolli ba wër waa Makka weer la Daawuda ñëw armal si yaare ndeyam yow man ba basaraha bi lali yàllaw wii weer la Daawuda ñëw armal si yaare ndeyam yow man wa basaraha bi lali yàllaw يا أبو الخادي أوتار وغالي أصنام وما هي أو شعر يلو يا أبو الخادي أوتار وغالي أصنام وما هي أو شعر يلو شوتم خريط لسليمان يو يبشرها ما سيارتي بالمختار يلو يا معين عيون كم هم اللي موي سيد الجن ولم لاك يلو yaa booy nu yóonin kenn amut li nga am mooy seyde jinne wa am naa ke yàlla mag naa ko billaay sangub sang yaa ñi nga yor nuuru samawaati wala diina naa ko billaay sangub sang yaa ñi nga yor nuuru samawaati wala diina yàlla safar la sayyiduna bégal ko saabal ko mbootam doom jayalaw yaa bu mbër may rañaan fawxal buraaqi ila sabi samaawaat moo jibriilu yalaw mooy saayibul waxyi bil quraani min suwarin mooy saayibu salaatil xamsi yalaw ja ibnu maryama ruuxu laay moo mujj ñëw ci weeru gàmmu la ñëw lil bisi yaa musaayiba yaatin ku gis ne wedam wala ji wa sawmi wa sakaati yàllaw mooy saayibu diin wal islaami moo ko jagoo tuuba fa tuuba liman xadaaba yàllaw mooy saayibu diini wa lislaami moo ko jagoo tuuba fa tuuba liman خدا أبا يا الله ما يجيب ديني ولسلامي موك يجو توبا وتوبا لمن قد أبا يا الله مشايب ديني wal islaami moo ko jagoo tuuba fa tuuba liman xad habayalaw bila imamalat umsal wala wadaat bi misri ahmadu fi akwaani yalaw waxatari nadara al mustafa karaman dahran bi arfin sasin minka yalaw wasallama bi tahlimin alay bi warawi roha bi rayaani yalaw laylatu mawlidi xayrul xalqi hadiya binha wal xawaariq wal ayaati yàlla guddi fukk ak ñaar la yónneen ñëw ci àdduna ji ci weeru gàmmu bisu lisnayni yàlla guddi fukk ak ñaar la yónneen ñëw ci àdduna ji ci weeru gàmmu bisu lisnayni yàlla keroog ba soxna sa toogee bis ba tollu barab saay noppu noppi ka def mawlid ba yàlla bur yàlla daldi yebal maryama aasiyatan xawaa zaarata ñuy ndoggeel si yàllaw kasaalika lhuuru walil daaru ñépp di way jigéen àjjana ñuy ndoggeel si yàllaw bu yàlla dal yebal jibiilu añ ña dar min al malaa'iki bilahlaami yàllaw ñu daal di jin tabalay baatin ci jiaras bilam di wal fari wa tasiimi yàllaw muallibat ana ibraa زمن آمنة بسرى لأهل الشماء والأرض يلو نراس جند بمبالم لك كلهم بمصف بين الهوالم والأقدار يلو بور يلا جيل جبريل kuy malaaka na dem ña lay siyaara ña lay ndokkee si yàllaaw wayal tawlaaw abwaaba sama imaan na ñëpp dem leen li waxtil fajri yàllaaw misi ak càmbur ya yépp di jib bayna samaawaati wa ardi ma dal di wasal njanaa mel ni wurus bi di wi ñëw weer wi ñëw ak niir yi yàlla jaaxal li yépp ak njanaaw yépp lu nekk di way fiil barri wal bahri wal awdaaxi yàlla lama badal mustafa min bani aminatin halaa لما بدا المصطفى من بني آمنة هلا عيدية أم الهدي الله تكلم المصطفى yónneen ba wax na ca kaw bis ba mu juddoo lañ ko way ndokkeel ya yàllaw takallamal Mustafa yónneen ba wax na ca kaw bis ba mu juddoo lañ ko way ndokkeel ya kabar na laay laana sa baal sant yàlla bu wér jibrilu sant ko man borom ayalaw waya faw rasalil mawla wayes judul il mawla wayes judul sa muñ saa muñ na sax muñ muñ lu sab sanga bon day wàññi sas ndoole koo xam ne am na am say nawle boo ko